ma ñëwee ci ci euh, kiiwu Abou Abel bi parce que dafay résumer ñun nii li ñu wax yëpp je suis d'accord que effectivement man wax naa ko d'ailleurs sur un groupe WhatsApp du pouvoir ma ne en vérité Amadou baax bu fekkee ne moom la ñu investir dafa war démissionner du poste de premier ministre. Ah, parce que tey jii boo jëlee Sénégal nga jël rek 45 départements euh, nga dem dans chaque département nga def fa 10 jours 2 jours mais c'est 90 jours. 90 jours c'est trois mois trois mois d'ici aux élections on est presque en, en janvier Tout à tey jii il y a des problèmes d'abord au niveau de la l'APR qu'il faut régler parce que maintenant Amadou Ba doit être disponible et accessible maanaam dafa war nit nit koo xam ni ku ko soxlo war nga ko mën a jot ku ko bëgg a gis war nga ko mën a gis parce que programme bu candidat à la présidentielle du programme buy jógee ci bopp mais day programme boo xam ne day jóge ci nit ñi jóge ci réalité réew mi te loolu nit mënu ko xam te demul ci nit ñi amul contact ak nit ñi d'abord say militants les militants de la l'APR les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aussi kilifa yi nekk ci réew mi les centres de pouvoir mais surtout aussi la grande masse les larges masses te kooku mënatul àndal euh, situation bi nga xam ne aujourd'hui moom moo am dans le pays mais kooku comme j'ai dit il faut que ñu xaar comme ni ko Sori waxee ba ñu investir ko parce que il faut que mu am congrès investiture au niveau de Benno et à partir de ce moment c'est lui le candidat mais feneen fi ma d'accord la ak mon ami Abou Abel mais le président de la République Macky Sall mënul nekk directeur de campagne pour ku xam lu directeur de campagne tekki directeur de campagne subordonné candidat bi la candidat à l'élection présidentielle mooy xool nit surtout par son expertise au plan politique mu jël ko tànn ko def ko jawriñam mu koy xalaatal di ko coordonnel et di ko organiser sa campagne électorale d'abord ne serait-ce que Macky Sall le président de tous les Sénégalais donc par respect par éthique républicaine loolu le président de tous les sénégalais mënul dem di nekk le directeur de campagne d'un candidat kooku mooy un sur le plan un peu républicain mais maintenant même sur le plan politique <coughs> mais le président Macky Sall mooy le président de l'APR mooy le président de Benno Bokk Yaakaar donc candidat bi ñu investir son patron sur le plan politique mooy Macky Sall ah. donc à la limite booy wax Macky xëy na da ngay wax ni xëy na c'est le coach walla nga ni c'est lui qui pilote qui qui qui supervise qui évalue et cetera donc kooku du du un directeur de campagne donc je crois que la fonction de chef de la majorité bi Macky am nga xam ne même bu jógee au pouvoir dafay des parce que kooku c'est pas des fonctions où on nomme quelqu'un le président de la paire c'est pas parce que Macky Sall quitté le pouvoir que dootul nekk président de la paire à moins qu'il en décide à moins qu'il en décide c'est pas parce que aussi jóge na au pouvoir que lay cessé nekk le président de Benno Bokk Yaakaar parce que ça c'est des fonctions politiques. Mm.